dal leen ak jàmm mbokk internet suñu gox tv nuyu nañ leen bu baax a baax ziar leen dellusiwaat ak yéen ci seen série famille sénégalaise nag ginnaaw nag bu Batour waxee wax ju rëy ñaaw ji nga xam ne nag moom la wax Ngoné ba Ngoné nag xolam metti na ci lool waaye sagarit looloo tax ñu naan mbokk ndeye koy jur ndax sagar nag na ki mooy Batour ndax seen xaritoo sax nag buñ juumul nag yaakaar nañ ne fi lay bëgg a jaare yàqu nag ndax sagar nag sikki na gépp sikki nag waaye mbokkam bëggul kenn di ko laal ba fantasé di nag ci la ñëwee di ko kaa nag ki nga xam ne mooy alima nag di ko wax ne ko sagar nag moom ak Batoor fi mu nekk nii nag seen coalition bi nag ñu ngi bëgg tas ndax nag sagar nag xam na ne ku laal ngoone rek nag xulam yëngu ki nga xam ne nag mooy soxna Batoor nag woona ñi nga xam ne nag ñooy presse bi pour ñu annoncer li nga xam ne nag mooy ñaanu nag seen maam bi nag léegi nag biigee moom nee na loolu du ko xalaat Mariétou tamit nag ànd na ci ak xol bu jeex nag ndax bëggul ñu def loolu ngoone nag ki nga xam ne mooy ngoone nag Batoor dellusiwaat na këram di ko seet ba goro ngoone ñëw di ko wax ne ko nag kaay wuyu Batoor ngoone jeex na loolu te nag xam naa ne bis bu gisee ak Batoor nag seen diggante ñoom ñaar du neex kon nag ngeen xaar ñu rek ci épisode bi incha allah nag ndax yaakaar naa nar naa neex lool jërë ngeen